L'Ergue TV, la lumière du Coran et de la Sunna. Abonnez-vous. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين Ma ba'd mbokki julit yi maa ngi dénk sama bopp ragal yàlla leen ko dénk ñu xam ne bokk na ci ayib yi gën a mën a sikkal jaamu yàlla nit ki boroomam jàngoro ji ñuy tuddee ak tama te mooy am xemmemteef ci jaam ñi bari ay bëgg-bëgg looy bëgg ci bindeef yi ak lañu yor ak muy xemmante boobu mooy xër goo xam ne gu jéggi dayo la xër ci dara ba mu jéggi dayo moom nag ñaari xeet la am na ci bu baax waaye am na ci boo xam ne bu ñu ŋàññi la bu baax bi mooy bi nga xam ne diggante jaam bi la ak boroomam mu xemmem la nekk fa boroomam loola yaakaar lañ tudd bu boobaa suñu boroom wax ci Ibrahima alayhi mu doon wax ne man dey maa ngi xemmem maa ngi yaakaar yàlla jéggal ma samay bakkaar walla si asmaw an yaxfira lii xatiati ma ddin yàlla rek laa xemmem moom laa yaakaar mu jéggal ma samay bakkaar bisu yowmal xiyaam su borom dellu wax ci làmmiñu ñi firaw andi woon ñu koy jibaral digganteem ak Muusa ñooña ba leen ngëm yàlla duggee ñu ne inna natmau an yaxfira lana rabbuna qatayana an kunna awal almuminin nun day noo ngi xemmem noo ngi yaakaar yàlla jéggal nu suñuy bakaar jéggal nu suñuy ñawteef te boole nu ci ñi nga xam ne ñi jiitu ci ngëm yàlla lañu xemmemteef muy tama boobu nga xam ne bu ñu gërëm la mooy boo xam ne dafa aju ci lu baax aju ci loo xam ne jaan bi ci boroomam la ko yaakaar lu mel ne sàkku xam-xam ak am yéene ci faj aajoy ñeneen ak am yéene ci sarxe am xemmimteef itam ci yàlla jéggal ko ay bakkaaram borom baa ngi wax ne ñi doon ñaan di wax ne nat wa natmamu an yudxilana rabbuna ma alqawmi saalihin noo ngi xemmem di yaakaar yàlla boole nu ci ñu baax ñi xemmeemteef boobu kon bu baax la bu jëmee ci borom bi waaye xemmeemteef nag ak xër gi nga xam ne moom lañu ñu yi ñi moo baaxut mooy nit ki bànneexu kanam jëm ci li nekk ci loxol nit ñi mel ne dafa wan yàlla gannaaw ndax amul dara lu gën a mën a yàq diine nit ki ci xemmemteef boo xam ne mi ngi jëm ci bindeef yi mi ngi jëm ci àdduna mu ngi jëm ci bànneexi àdduna moo xam alal la wala dara jala wala place la bu muy am ci àdduna ndax képp koo xam ne saaraan ne wéy fop ay mébétam ak i xemmemteefam day mun ci nekk jaamu loole nga xam ne moom la bëgg fu mu ko jëmloo rek mu jëm moo tax bokk na ci wax yi ñi nga xam ne ay xukkamaa lañu ñu ne as gorde yi su baree xemmemteef ab jaam lay doon waaye ab jaam bu doyloo as gor kon ndeke gore mi ngi nekk ci doylu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam misaal ëpp ak xemmemteef bu bari mu ne ñaari till yu xiif yu ñu yabal ci gétt lañu fa yàq li bëgg alal ak bëgg daraja di yàq ci diine nit moo ëpp li yooyu di yàq ci gétt googu ku xasee bëgg alal bëgg daraja bëgg yëkkatiku loolu diineem lépp la yàq ndax lépp lu koy may loola rek dutu ko bañ a def xemmemteef yi nga xam ne moom lañu ŋàññ moom lañu bañ dafay sababal boroom ak suufe ak toroxlu ak di sibooru dina ci gannaaw ñoo ñu nga xam ne li mu xemmeem ñoo ko yor di toroxlu ci seen wet boroom alal yi bëgg a bokk ci seeni cogg yay ànd ak ñoom di daw ci seeni njariñ ak seeni intérêt du ca seet nag ba xam ñooñu muy daw ci seen gannaaw ci dëgg lañ nekk wala ci neen lañu nekk waaye daal gannaaw xemmem na li nekk ci seeni loxo rek mu daal di nekk seenub surga nekk seenub jàmm tama muy xemmemteef boobu mën naa dem ba mujj egg ci li ñu tudde jasa jasa nag mooy bëggeel bu jéggi dayoo xemmemteef bu jéggi dayoo ba egg ci fukkule loola mooy yóbbe nit ki day bëgg a jël wàllam ba noppi bëgg a jël wàlli ñeneen duutu doyloo ab cëram day xemmem ci am loo xam ne sax bokkul ak la mu yeyoo waaye lu bëtam tege rek wala mu dégg ko rek wala mu gis ko rek jàpp ne loolu moom moo ci jekk ak nag lu mu ca mën a jot rek baax na melokaan woowu nag am na lu koy yóbbe nit moo tax al imaamul Maawardi ne liy yóbbe nit xemmemteef bu ëpp boobu ñaari mbir la benn bi mooy ashara mooy foqale mooy bëgg bu ëpp ci mbir bi ci des mooy néewug jombul nit ki néew muy jomblu maanaam li ñuy wax ku ñàkk jom nee na kooku nga xam ne moom la jàngoro jooju dal du doyloo li mu am ak lu mu bari bari bari du ko doylo ndax fokole, gi mu fukkale fukkale day melé ci lu bënn rek wala ndab lu bënn no ñu ko tuddee fukk lo ca def rek mu tuur muy xaarat leneen lo ci def waye itam la muy ñàkk lu mu ñak ñak solo mom du ko xeeb ngir ñak go xamné ñak ko ak job mana dal du jox kenn dara waye du bayé kenn dara itam amul dara lu muy bëgg jox nit bu bayiko ci mom ngir ak bëggel waaye lu ko nit ameel itam lu mu néew néew néew du la ko bàyyee loolu la ko waral mooy ak ñàkk a jom jomb ndax am na loo xam nit ki war na ko jom melokaan boobu nag am na ay mandarga yu muy feeñ ci ki mu dal la ca jëkk mooy day bëgg bëgg te mu ëpp ëpp su fekkente na lam doon xemmem ak di ko wut am na ko ndax mbégte su fekkente ne du ci dëgg lu ñu ŋàññi la suñu borom wax ci xaaroon mi xam ne da koo mayoon alal ju bari ba ko nit ña ne bul bég ci sa alal jii mbégte moo xam ne la yóbbu ci mbewte ndax yàlla kat bëggul ñuy bég mbégte moo xam ne da leen di yóbbu ci mbewte is qaala lahu qawmuhu la tafrax inna allaha la yuhibbul suñ boroom di wax ne bu leen yàlla nattoo da ngeen war a muñ nattu ba bu leen defalee xéewal itam xéewal nga waru leen a bégloo mbégte muy egg ci mbewti li kay laa tasaw ala ma fatakum lépp lu leen rëcc bu mu leen metti ndax yàlla mën na leen a joxaat lu ko gën waaye wala tafraxoo bi ma aataakum bu leen bég mbégte mu ëpp ci li leen yàlla jox ndax kat wallahu la yuhibu kulla muxtaalin faxuur yàlla bëggul kuy tiitaru bëggul kuy damoo la mu am bokk na ca la muy yóbbe nit itam almarax te moy di cëpp cëpp cëppi xiru aduna lépp cëpp cëpp la tiitaru la wané wala su fekkante ne lam doon wut da ko am te borom baagi wax ne bu leen dox ci kaw suuf di cëpp cëpp ak wané wu ndax kat mënu leen a bëtt suuf ci te mënu leen gudd ba toll ne montagne innaka lan taxriqa arda walan tabluqa al jibaala tuula luqmaan ba dénk domam ja bokk na ca lam ko wax bul reuy reuy ko wax nga jox ko ab xol fële bul dox ci kaw suuf itam di cëpp cëppi ak a wanewu yàlla kat bëggul kuy tiitaru ak a damu wala tusair xaddaka linnaas wala tamsi fi ardi maraxa inna allaha la yuhibu kulla muxtaalin faqur bokk na ci ay melokaanam itam ku bëgg ëpplante lay doon ci dajale koom-koomu àdduna ak xër ca lool te su ko amee itam nag du ko def ci fu baax fuñ ko war a def moom la borom bi naan alhaakumu takaasur attaa surtumul maqaabir nee na ëpp lante àdduna fàbbi na leen ba talatu leen li leen fi andi woon talatu leen jaamu yàlla talatu leen def lu baax ngir rek ëpp lante àdduna nee na ca lool la ñuy nekk ba dugg ca bàmmeel ya bokk na ci sabab yi nga xam ne dana yóbbe nit jàngoro jooju di ko dal la ci jiitu mooy ak réer ñàkk a xam ñàkk yittewoo itam yar ba kanam ñàkk yittewoo itam tàggat ba kanam ci sellal ko yar ba ci muñ topp yàlla bàyyi ay moy ndax kat bakkan dañuy liggéey ci moom wa naha nafsa anil hawa garab ni koy taayee pour bañ car yi déborder mu mën a jekk bakkan itam lañ koy taayee وتا بروم بي واما من قاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى الهوى مي بانيه موي لي دبر دي بكام ليغا خامي لا غارام بو نتاي ووتام فو ني تياري دا فاي جيم فو ني تياري دا قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها بوكو نتي ليكو يوبي دي تيتام يار بو باخ ak magge ci milie bo xamne bu tilim la bo xamne ñafa nek yep aduna moy ak wanew nit ki màgg ci milieu bu mel noonu rawatina mu am fa àndandoo yoo xam ne baaxuñu ci rek la ñu nekk adduna rek lañ jëmbat ci xolam moom lañ taaral ci bakkanam bokk na ci itam di woru ci cër yi nga xam ne nit ki da koo am ci àdduna mu daal ci woru moo xam cër bu am alal la am wala pal la am mu daal di jàpp ne tollootut ak ñi nga xam ne dañ ko amut te xamul ne yooyu yëpp andiwu ko fi woon te buy demit fi la koy ba bokku na ci ñaawteef yi nga xam ne ak tamaa muy bëggee xemmemteef bu bari dana ko jur ci ay lor mooy borom daf koy yóbbe ak texeem ak loo ko gis-gis mu mel ne dafa jekk waaye téewul ma nga yëg ak texee bi ak coono bu metti ngir xemmemteefam googu nga xam ne amul fu muy yem lum mu xas am weesu na loolu bëtam jàll na ca lam amagut ca la bëtam di tegee toujours ak la nit ña yor moom lu wala fi wax ne dafa séeneen ku séeneen lay doon maanaam du gis lim yor waaye day séen la nit ña moo tax kon fu mu toll ci coono rek lay nekk ànd ak nag la koy xaar ci mbugal ci àllaaxira bu génnul ci melokaan boobu bokk na ci la koy jural itam day ñàkk alwara muy sàmm sàmm mooy di def ndigal yi di bàyyi tere yi looy dugg lu ne seet lañ la ca digal ak lañ la ca fere ndax sàmm mooy tax nit ki du tàbbi ci ay moy du tàbbi ci ay lënt lënt bokk na ci li muy jural borom itam borom fum tollu day yek ak ñak donte bari la na lool waye mom nit ñi gis alalam ak lim am waye mom gisuko mi ngi daw rek ci gannaaw xemmem téefam yoyu nga xamne amul fum yam na ci itam fay def bopam ab jaam jaamu alal ak jaamu ñayor alal ak jaamu ñayor dara loola moy tax itam day xébu lool ci bëti nit ñi ndax namuy siboro ak namuy surga wo ngir la nga xam ne ñoom la moom la xemmem ci ñoom melokaan boobu nag ku mu nekk ci moom am na ay jeexit yu muy jur ci nit ñi kenn par kenn muy kam dal waaye tam sax biir société ba muy dund sax lor ja dañ koy yëgaale bokk na ci la muy jur bari ay woote woo di woote woo ci sa bopp yoo xam ne dara du ca dëgg di propagandal sa bopp wala wut ñu lay propagandal lu ne nga ne man nga ko lu ne nga ne am nga ko lu ne nga ne yegg nga fa booloo gi tam bari xuloo lool ci keneen ku ne nga bëgg koo wàcce wàññi darajaam loo xam ne doo ca bañ sos doo ca bañ wax lu dul dëgg ngir bëgg a wane ne yow yaa ko tiim ndax da ngay jàpp ne li lay yëkkati gën a ko woo li ngay def mooy suufeel ñeneen ñi maanaam ki gàpp te xam ne mënta gudd day fexe ba nit ñi toog wala ñu tëdd su ko defee mu sut leen nit ki lu mu gàtt gàtt mooy sut ku toog su ko defee nag mu wane ne moom moo fi sut fekk na li nit ñi toog a rek wala moo leen bëbëx ba ñu daanu su ko defee nag mu wane ne moo leen sut boobaa itam ay valeur ak ci jikko itam day ñàkk ci biir société bi su ci loolu tasaaroo jikko yoo xam ne dafa waroon a teg ci kenn ku nekk yéene sa moroom li nga am yéene sa moroom gënal ko sax ci li nga am bu dee kenn nga mën koo jox sa bokk toog di def ay sacrifice ngir jariñ keneen melokaan bu mel noonu tasaaru ci société société ba tooñ dafay bari lool néewalaate doole dafay bari lool rawatina nag su fekkee ñooñu dañoo bokk ci ñi nga xam ne dañoo yore baat dañoo yore dogal dañuy jëfandikoo baat bi ñu yor autorité bi ñu yor ngir di ko notte nit ñi di leen ko néewale doole ngir mën a am li nga xam ne moom la ñuy wut mbokki jullit yi bokki na ci xéewale suñu boroom tabaraka wa taala ak yërmandeem nag jëpp jàngoro jum mën a doon rek wutal na ko saafara wutal na ko lu koy faj bokk na ci liy faj jàngoro jooju ku mu dal mooy na nga yëkkati sa bopp ci bëgg-bëgg àdduna yu suufe yii nga weesale ko sa bopp yëkkati sa yitte tam ci bindeef yi ba a yittewoo bindeef yi ndax xam ne bindeef yi ñoo yow a yab rek say naw la nag inna la sina taabuduna min dunillahi ibadun amsaalukum koo fi jaamu ku dul yàlla rek nee na jaam la boo xam ne sam nawle bañ a toroxlul kenn loola nag la la koy may mooy nga xam ne àdduna jii kër gu rombukaay la du kay rawukaay même jiitu fi nit ñi ëpp leen ci alal taxagul nga raw leen ndax course bi jeexagul xam nga course bu jeexagul moom man ngaa jiitu waaye dab la du wees da gis koo xam dañoo départ rek mu daal di raw ñëpp te bu wutul moo nar a jël ndaare course bi jeexagut nga xam ne kon fii kërug romb waaye la waaye du kërug saxuwaay ku am xel nag lu muy waajal da koy waajal fa mu jëm waaye du koy waajal fi muy romb man bagage bi nga yor fa nga jëm fa nga nar a teeri moo ko war a tax a waye fi ngay romb waru fa waru fa bayyi sa bagage waru ko taxaju te jóg mom àdduna kay la kon diga am do ko fi bax da ngay fexé mu jall waqtaqi fi ma ataka allah ad-dar al axira mboolem la yalla jox wutti al akhirah wala tan nasibaka min ad-dunya nag nak wutti rek lo xamne da nga mën a dimbali ba nga man fene ba tal li la fi mom da ngay tal li la fi rek muy jaamu yalla lo fi wut rek pour tal li la fi bokk na ci lay tax itam nit ki mucc ci jàngoro jooju mooy nag yëkkati ko dolli xam-xamam ci mbooleem ak tey sharia yi ci fiq ci pas-pas ci ay jikko yooyu mu di ci yokk di ko jàng di ko gën a xam su ko defee diineem gën a dëgër sa diine lu mu gën a dëgër rek àdduna gën a ñàkk solo fi yow waaye bokk na ci itam nag mu tàqali kook àndandoo yu baaxut yoo xam ne surtout ñoom jàngoro jooju da na a dal bépp milieu boo xam ne itam loola lañ fay dund àdduna rek lañ fay tiitaroo moom lañ fay wane moom lañ fay damoo mu sori milieu bu mel noonu bokk na ci itam nag mu taxoo doylu doylu ndax fi dara doy waaye yaay doylu yaay doyloo li nga am doyloo ci loo xam ne rek mën naa faj ay aajo àdduna li nga lu mën a faj say aajo rek loolu doy na waaye loo xam ne boo ko amee denc ko ak wan ko nit ñi ak tiitaroo ko donc koy doy waaye xam nga ne ba bëggay faatu sax bootul mënoo ko jëfandikoo loola bu boobaa fitna lay doon teew waaye nag bokk na ci sabab nag bi gën a mag nag gën a màgg ci faj jàngoro jooju mooy ne gàll ci suñu borom tabaraka wa taala ci di ko ñaan di muslu ci jàngoro jooju ak li nga xam ne moo ci nekk ci ay musiba muy bëgg gu ëpp koo xam ne rek moo fees ak xol séeneen lu keneen yor rek la sa bët di tege waaye yow li nga yor gisoo ko loolu nit ki daa war di ñaan suñu borom tabaar ko taala mu musal ko ci ñi ngi ñaan suñu borom tabaar ko taala mu def nu ñoo xam ne dañuy gërëm li mu leen sedd dañuy gërëm li mu dogal ci ñoom pour dogal bu mën a jëm rek ñu gërëm loola def suñuy làmmiñ itam mu takkoo alhamdulillah sant suñu borom tabaar ko taala wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain